na ngeen di abonné fii ci Darou Motivation di abonné bés cloche notification bi partager vidéo yi ngir bépp vidéo yi ngeen dugal la ngeen bokk ñu ko jot jërë asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi sëfu sunu chaîne bi di Darou Motivation Actu ñooy leen ñaan ngeen benn abonné bu baax baax tey partager vidéo yi mooy tax saa yu ñu mën a vidéo ak yéen ñëwaat ci li nga ndaw si ngeen ci photo bi ci bi na dama ki nga di Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna nag képp ku Sénégal xam ko bu baax baax moom moom ndaw si nag mooy wuyoo ci turu Daba Diouf Daba Diouf Badji moom ndaw si moo tudd Daba Diouf Badji la tudd moom nag moom soxna si nag moo ne woon moo moo soxna si nag moo ne woon soxna ji Badji di woon a takk der maanaam ab police la woon waaye dafa réeroon ci mois de le 18 novembre 2022 moom da ca réeroon ba daanaka kenn ñu bëri gisatuñu ko kenn xamul ma ci lan nekk ba tax ay ay ci li ñu nekk waaye tamit kii kii di Guy Marius Sagna dafa xëy fësal ne moom Guy Marius Sagna na daal di xam ne soxna si di faatu faatu na ca France mu moom Guy Marius Sagna moo wax loolu te ginnaaw soxna dafa réeroon dafa réeroon ay ay bu yàgg ba dafa réeroon te tey jii nag la Guy Marius Sagna xam ne moom soxna si mi woon ca France doon fa liggéey waaye jamono ji nag laa ko nax yàlla ko yàlla yërëm na ngeen wéy di abonné fii ci Darou Motivation di abonné bés cloche bi partager vidéo yi ngir bépp vidéo ñu mën dugal bokk ñu ko njëkk jot jërë